waaye nag dana bari mbir moomu su dikkee dana bari ay jafe-jafe wala ay gàllankoor yu la ciy dal ba tey ku tawat gént di fóot ay yéreem loolu day tegtale ak wér ci tawatam googu ba tey it dana tegtale ak dëppook mbir moo xam ne dana koy sàkku ba tey koo xam ni dafa faatu gént ñu koy sang loolu dina tegtale fajuk aajo ci wàllu àddinaam wa ila nit ki waat wajafar, faatu ba tey it di sang nit ku faatu loolu dinay tegtale faatu si nit koo xam kula ku wala koo xam wa ila fuñ la fekk yow da ngay gént rek tout temps di nekk ci ay néew di len sang te yow mi loolu ala kulli xaalin yow mosoo dem ci afani sangee néew loolu dana danay doon nit ku ni lo xel ci mbir yu aju ci wàllu faatu wa ilaa mbokk mu mu ko jege dana faatu mu sangu ko wa ilaa mu bokk ci ña koy sang lool it danay tegtale nit ki fu mu toll di gént di nekk ci sang fu ñuy sange ay néew ba gént di sangu danay tegtale ubbeeku ci wàllu wërsëg ba tey dinay dekk dolleeku ci wàllu alal koo xam ne day ñaan yàlla pour wàllu njaboot gént di sangu ci ndox mu set alaakulli xaalin dañ koy xamal ne bu doon lu muy ñaan yàlla yàlla dana ko sottal ba tey bu doon koo xam ne day wut day sàkku dara bëgguma sotti lool muy ñaan yàlla suñ borom sottal ko mu gént am ndox mu baree bari ñëw di taw fu mu nekk loolu yàlla dañ koy xamal ne sottal dana sottal mbir ma muy sàkku waaye mbir la moo xam ne dana am ay xat-xat wala ay jafe-jafe ba tey it gént di fóot baax na waaye du ci ñëpp la baax gént di faat danay tegtale xat-xat yi jeex ci misaal bu dee jigéen nag gént di fóot lu ci ëpp gënul ci ñoom gént di fóot cim ndox gënul ci ëpp ci jigéen ñi danay tegtale jigéen ju dul gaaw a jël ëmb wa ilaa jigéen joo xam ne ëmb ak ëmbam mën naa yéex wala saa bu jëlee ëmb ëmbam yaakaaram mën na cee tes kon alaakulli xaalin loolu it bokk na ci yi nga xam ne am na ci gént di sangu gént raxas say loxo baax na danay tegtale coono bii jeex ba tey gént di raxas say tànk baax na dinay tegtale xat-xat yiy jeex ba tey bu dee da ngay ñaan yàlla yàlla di la booleeg ay nit pour ngeen jëflante ci wàllu liggéey nga gént ngeen nuyoo di raxas ngeen bokk fu ngeen raxasee seen wàllu loxo yi loolu it dañ lay xamal ne kooku seen diggante dëppoo na ci wàllu liggéey kooku it mën ngeen a liggéey te alaa kulli xaal di nga ci am lu faw ko sa njort ba tey it gént di raxas say yére lu ci taq loolu dina tegtale xëmmun mooy njàqare wuy nit ki di am ci mbir mu koy jaaxal ba tey it nit koo xam ne dangaa gént di sang sa soxna ci misaal koo xam ne dangaa gént di sang sa soxna dinay tegtale ak réeree mbir moo xam dina am ba ko koo xam da ngaa gént di sang su soxna dina tegtal sutura su am sa digganteeg moom way laa ndimbal loo xam ne dina am ba ko koo xam ne da ngaa gént yow ak sa borom kër ngeen nekk fu di sangoo loolu it baax na danay tegtale sun borom dana def seen diggante barke waaye dinay tegtale ubbeeku ci wàllu am-am waaye ubbeeku ci wàllu njaboot bu doon lu ngeen di sàkku la ala kulli halin dana am ba gént koo xam ne mu ngi dund gént di faatu ñu koy sang loolu dinay tegtale ak faatu ci ñenn ñi loolu saa bu leen loolu dalee rek ak faatu la ndax am na ci ñoo xam ne seen ay gént dañ leen di wan niñ koy géntee noonu lay amee am na ñoo xam buñ di sang néew balaa yàgg ñu gis seen mbokk mu faatu ñu sang ba tey am na ci ñoo xam ne suñ géntee mel dañoo faatu ñu leen di sang balaa yàgg balaa man ñetti fan ñu faatu ba koo xam ne dangaa gént di sang néew loolu dinay tegtale di sàkku loo xam ne luy am lay doon mooy bu doon dooy lijjanti nga ñaan yàlla pour mu sottal nga gént nekk fi ni sangee néew dañ lay xamal ni aajo ju faju dana koy def ba tey it ubbeeku ci wàllu ay mbir dana koy tegtale kon ala kulli xaalin eh, gént di sang tamit danay doon tedd nga ci ñenn ñi ba tey it gént di sang néew dana doon tiyaaba wala dolleeku wala fajuk aajo ci ñenn ñi ala kulli xaalin kon gént di sang néew day tegtale ak jiite ci barab koo xam ne sunu boroom dana ko defal muy doon ku yëkkati ko wala ku am wàccuwaay ci barab boo xam ne dana fa nekk kon gént di sang wala gént di sangu wala gént gis ay nit ñiy sangu ala kulli xaalin am na ci ay tegtal yu baree bari kon gént lu am solo la ci doomu aadama bi ak ku ci nekk na koy génte ba tey koo xam ne danga gént di sangu ak saabu gént di sangu saabu baax na loolu it danay tegtale njéggal waaye danay tegtal ku ñu tegtal wàllu sarax ci wàllu saabu koo xam ne dafa war a saraxe saabu ba Eh, koo xam ne dangay ngay sàkku njéggal ci misaal nga ñaan defay bàkkaar bëgg yàlla jéggal nga gént di sangoo saabu loolu dinay tegtale ak njéggal wa ju faju ba tey koo xam ne dangaa gént di sangu ba ci yàgg ndox ma nga doon sangoo di jeex ci gént gi loolu dinay tegtale aajo ju fajogut bu doon koo xam ne dangay waaj tukki nga gént yu mel noonu dañ lay xamal ne tukki ba tukki bi bari ay jafe-jafe lay doon ba tey bu doon ab sëy ngay ngay listixaar ba xam ndaw si baax na nga gént di sangu dem ba ca biir ndox ma jeex ngay wër ba sonn amoo ndox loolu dinay tegtalee sëy boo xam ne mën nga cee dugg dem ba ci biir ngeen am jafe-jafe ak te pour ngeen réglé wu dana dina jafe lool pour sa diggante ak moom sottiwaat dina jafe lool ba tey it bu doon koo xam ne dangay ñaanal nit ci wàllu aajoom aajo ju faju yow mi koy ñaanal ci gént gi nga yëg ne alaakulli xaalin dangaa sangu ba ci biir ndox mi jeex wala robine tëj ngay wër ndox foo sangoo mënoo sangu ba tey bu doon ko tawat la nga koy ñaanal pour mu wér nga gént di sangu ba ci yàgg mënoo am ndox loolu dinay tegtaleen tawat ju yéex a wër lay doon wa ilaa dana tegtale jafe-jafe ay mbir yoo xam ne mën na koo gaar sonal ko lool kon génti sangu baax na ci ñenn ñi waaye génti sangu danay doon ay xat-xat ba koo xam ne danga yëg ne ci gént gi dangaa yëg ne tuufaan daa am ndox mu baree baree bari dugg ci ab dëkk ci misaal mbënd mbënd baaxul ci am dëkk ndox mu baree bari ci wàllu gént fees fépp loolu dinay tegtale coow li am wa ilaa jafe-jafe bi am ci barab boobu wa ilaa ay xat-xat wala ay gàllankoor yoo xam ni mën naa am ci barab boobu wala ay fitna yoo xam ne gént di sangoo ndox mu tàng nag loolu moom jafe-jafe la ci wàllu mbir gént di naan ndox mu tàng lool it gàllankoor la nit la ko sant yàlla gént di naan ndox mu tàng gént di ndox mu tàng lool gàllankoor la gént kër gi ngay waaja sanc ñu tur fa ndox mu tàng kër gi bëri coow lay doon kër la goo xam ne mën nay bëri ay jafe wala ay xat-xat ay gàllankoor mën nay bëri lu mu fay kon gént ku faatu ñu koy sangoo ndox mu tàng ku faatu ba noppi nga gént ñu koy sangoo ndox mu tàng loolu ak xisaab la ay jafe-jafe la ay bakkaar ay xat-xat kooku lu ca gën mooy sàkkul ko njégal bu dee koo xam nag dangay dund nga gént faatu yëg ne dañ lay sangee ndox mu tàng loolu it bàkkaar yu bari dina koy tegtale wa ilaa kun jéggal mu dem tuubi jigganteem ak boromam kun jég kun digal muy sàkku ak njégal kun digal muy sàkku ay sarax kon gént faatu ak yi nga xam ne feeñ na ci biiram kon alaakulli xaalin tegtal yu am solo waaye tegtal yoo xam ni ku nekk mën na cee bàyyi xel waaye tegtal yoo xam ni yu mat a jàpp la ci ay mbiram kon euh, mbokk yi nga xam dañuy aajowoo numéro bi mën nañ koo jël 78 443 75 27 ñi nga xam ne dañoo bëgg ku leen firil seen gént wala ñi nga xam dañuy bëgg lu aju ci wàllu seet wala li saxaar bu dee gént yi nag koo xam ne woote nga wala nga envoyé vocal dañ ci am luñ ci joxe dafa am addiye joo xam moom lañ ciy laaj bu dee message yi TikTok bi nag buñ amee jot incha allah dinañ tontu ñëpp waaye buñ amul jot rek ñu bàyyi ci xel bu baax a baax kon ala kulli xaalin mooy tomb bi nga xam ne indi woon nañ ko tey pour fas yéene ko leeral ci lu aju ci gént di sangu moo xam kuy dund moo gént di sangu wa ilaa ki nga xam ne moo faatu moo gént ñu koy sang wa ilaa dund yëg ne daa ñu koy sang xaalin loolu it ay tomb yoo am solo waaye yu takk-takk yoo xam ne ku nekk mën na cee bàyyi xel am na ci ay benn benn nag ci doomu aadama yi ñoom duñ gént yàlla daf leen wan ci anam boo xam ne nam leen koy wanee noonu lay amee kon ñu ngi ñaan yàlla suñ borom mi nga xam ne mooy def jàmm yal yàlla defal ñu jàmm ñun ñëpp yàlla fajal ñu aajo yi mbooleem jullit ñëpp di ñaan suñ borom defal ñu jàmm di wax wasalaamaaleykum ورحمة الله تعالى وبركاته